invité yi muy noonu Lémina et là euh, Mame Birame euh, wàcc euh, tey comme tous les lundis moom ngeen di am ci la chronique du jour Lémina ziar naa la. maa lay fay ziar bu baax <laughs> gis nga maa ngi xiixante pareegu ma. <laughs> <laughs> di di di Salma di nuyu. di nuyu sénégalais gambien africain yi ñu seetaan yëpp. chaque jour Pierre ne ma nii mais toi tu prends tu prends Mame Birame Wathie à temps tu peux pas lui faire venir et lui donner 15 minutes alors que Mame Birame Wathie n'est jamais là à temps. waaw non non non Pierre wax na dëgg rek dama fi daan ñëw di am ay minutes yu dul mat sax. ay 30 minutes <laughs> waaw tey ma jox la 30 minutes yaa ngi noonu ma koy ziaraat bu baax a baax moom Mame Birame Wathie comme ni ñu koy defee chaque lundi xam toll ñu war a waxtaanee ci li nga xamante ni moo di wàllum géopolitique donc euh, aujourd'hui ñu war a waxtaan ci nouvelle monnaie bi nga xamante ni alliance des états du Sahel jamono ji am nañu mbébétu teg ko donc mu mel ni le Mali euh, Burkina Faso ak Niger jamono ji ils ont trouvé la nécessité de mettre en place benn euh, union économique et monétaire donc jamono ji mu mel ni nag yàqamti nañ lool ngir dugg nag ci si opéralisation bu monnaie boobu nga xamante union bi fas alliance bi lee nañ koo teg ñuy fàttali fàttali ni que alliance bi ñu ngi ko mettre en place le décembre euh, dernier xëy na dañuy bàyyi rek maam Biram Waaj mi nga xamante ni 16 septembre hmm. dernier donc euh, <laughs> mu mel ni nag maam Biram yaa ngi intitulé sujet bi nouvelle monnaie de euh, l'AES di alliance des états du Sahel panique à la CEDEAO xëy na ñu bàyyi la rek nga yaatal ci waaw tout à fait comme ni nga ko waxee effectivement Euh, seetlu nañu ne depuis euh, septembre passé mm-hmm. euh, dëkk yi nga xamante ne ni ñoom ñooy Niger Niger di Burkina Faso ak Mali mm-hmm. dañu créer benn alliance donc ñu tuddee ko Liptako Gourma de manière locale pour juste expliquer que Euh, c'est une euh, comment dire une alliance boo xamante ne ni dafa am ci diggante pays yoo xamante ne nii dañu bokk benn frontière <laughs> léegi bi ñu créer <coughs> alliance boobu dans un premier temps c'était une alliance de défence mmh. puisque euh, le 26 juillet bi passé fële seen Niger dafa amoon coup d'état bi mu amee coup d'état CEDEAO daal di def Euh, réunion le 31 juillet su ma juumul ci sanctions yi nga xamante ni yëkkati nañ ko ñuy menacé waale Niger mm. que mën nañu dal ci seen kaw ci la Mali ak Burkina Faso génne benn communiqué communiqué conjoint di expliquer ne ku dal ci kaw Niger dafa mel ni dal nga ci seen kaw. Mm. donc foofu la yëpp déparé euh, bi ñu demee ba nga xamante ne nii jàpp nañu ne <coughs> question de sécurité rek euh, quelque part mënul tax ñu ñu génn ci. puisque mun nañ leen a tëggal ay tegal ay ndëgg sarax ci yeneen fànn yi économie ak yeneen yeneen ñu ne léegi dañuy euh, def loo xamante ni moo gën a yaatu une simple alliance donc ñu ngi wax sax maintenant affaire confédération et tout ça mais balaa boobu <coughs> li nga xamante ni moo jata moo jara euh, tënk mooy que tout simplement ñetti état yooyu donc bi ñu taxawalee seen alliance boobu ñoom wane nañu ne kafuñu déjà le président Abdourahmane Tiani def na benn déplacement dem au niveau du Mali dem également au niveau du Burkina dëkk yooyu yëpp bu ci nekk mu waxtaan ak ki nga xamante ni moo ko jiite. ba mu fa jógee dañu gis ne <coughs> pardon euh, ministère les ministres des affaires étrangères dans un premier temps dañu dajaloo daal di def benn réunion pour jéem a xool naka la ñuy def du point de vue euh, de la diplomatie ñu harmoniser seeni position mm. ci également économie ñu ne ñu dajale seen i <laughs> ministre des affaires étrangères euh, ministre de, euh, de de l'économie mm-hmm. bu ñetti dëkk yi ñu dal di waxtaan xool également naka la ñu mën a def pour harmoniser seeni monnaie donc cool yëpp foofu la départ bi nga xamante ni seen ministre de l'économie daje nañu ñu ne dañuy waxtaan xool ndax est-ce possible ñu mettre sur place une nouvelle monnaie mm-hmm. loolu nag yaakaar naa ne tiital na ñu bëri surtout Euh, waa CEDEAO parce que depuis quelque temps muy Mali di Burkina dañoo amoon des difficultés pour jot ci xaalis bi nga xamante nii moom la leen UEMOA yoreel war leen ko jox tout le temps bi nga xamante ne nii loolu am na ñoom ñuy xool par quel moyen la ñuy def pour ñoom ñett ñu ànd ba pare am seen monnaie bopp <laughs> léegi nag loolu réaction bi nga xamante nii euh, suscité na ko mooy que quelque part gis nañu ne Euh, bërki démb <coughs> le président de la commission de la CEDEAO mm. dafa wax ne ñetti dëkk yooyu ku ci nekk dinañu la jàppale ci lu tollook tolloog 1,9 million de dollars 1,9 million de dollars ñu ne Burkina sax moom puisque euh, quelque part dañu sentir ne am na beaucoup de déplacé ci seen dëkk boobu dañ leen ci yokkal 1 million muy 2 millions 900 léegi nag loolu suscité na débat bu mag a mag ci lan moo war a tax <coughs> quelque part Burkina euh, Burkina Faso di jëflanteeg terroristes yi depuis des années dégguñu CEDEAO mais pire Mali bi nga xamante ni ça pratiquement plus de dix ans ñu nekk di kërti kërti ak le terrorisme te gisuñu woon CEDEAO dégguñu woon CEDEAO ñu dem ba nga xamante ni CEDEAO boobu sax yëkkati na ay sanctions yu diis teg ko ci kaw Mali bi nga xamante ni il était en guerre ba tax euh, mu indi leen ay jafe-jafe yu bëri ñu ne CEDEAO boobu naka la mën a yëkkatee lu tolloog un million neuf cent dina da koy jébbal dëkk yooyu pour ñu xeex ak terrorisme donc euh, c'est c'est ça la question ku nekk nag mu ngi naan lan moo waral euh, déjà <laughs> gén signe de générosité boobu. Mm. parce que bu yàggul maa ngi wax sànq ne le 31 juillet euh, CEDEAO bi mu <laughs> réunion we dafoon ne. <laughs> escalier yi nag bàyyi bu ñu. waaw bàyyi yële escalier <laughs> waaw. <laughs> donc ah waaye Aïcha ba waaye. Massa Thion dañu koy bàyyi mu mu souffler en mm. euh, euh, euh, donc donc ñu ne un million neuf cent naka naka la CEDEAO bi nga xamante ne nii le 31 juillet ñoom bi ñu defee seen réunion fële ca Abuja dañu ne dañuy écarté wuñu dal ci kaw Niger. pour indiwaat l'ancien président muy Mohamed Bazoum naka la Nige euh, CEDEAO boobu nga xamante ni bu yàggul dara la doon menacé naka la mën a ëlbatikoo tey ba ne day jàppale Niger pour mu xeex ak le terrorisme ak bu ñu demee bay jàppale Niger xaalis bi nga xamante ni moom lañ ko bëgg a jébbal ci loxo kan lañ koy teg bu nekkee ne ñoom jusqu'à présent dañu jàpp ne Mohamed Bazoum moom mooy le président du Niger. Mm-hmm. d'ailleurs ci seen sommet bi nga xamante ni organisé nañ ko démb ki nga xamante ni moo fa teewoon mooy l' ancien ministre des affaires étrangères bu mm-hmm. Niger xawma la premier ministre maa ngi hésité daal mais en tout cas ki nga xamante ni moo leen fa teewal ancien ministre bu Bazoum la ba mu fa ñëwee fekk na réunion ba donc nit ñi di euh, xalaat ne bu nekkee ne fi mu toll nii da nga bëgg a jàppale Niger euh, euh, quelque part depuis le 26 juillet constaté nañu ko le pouvoir a changé de main même ñoom bu ñu continuer di wax ne Bazoum la ñu reconnaître en tant que président dans les ñi nga xamante ni ñoo téye le pouvoir fi ñu toll nii au Niger. Mm. mooy Abdourahmane Tiani ak ñi nga xamante ni ñoom lañu àndal. donc euh, ci dëkk boo munti seetlu rek xaalis boobu nga xamante ne neen dañu la koy jëbal dangay comprendre que ne lii nii ce n'est pas raisonnable boobu Mali wax naa la ko sànq def terroriste yi def nañu foofu daanaka. près de dix ans dem nañ ba benn instant boo xamante ne nii boo boo suivre communication la presse de la presse occidentale li ñu lay wax mooy que à un moment c'est la France moom moo sauvé le Mali puisque terroristes yi demoon nañu ba bëgg a dugg ci Bamako. Mm-hmm. c'est parce que Serval moo am moo tax quelque part ñu freiné leen donc loolu c'était entre 2011 2012 donc 2011 2012 ba tey 2023 ak tout ce qui s'est passé entre temps. nga ne da nga toog ba heure bi ne da ngay jàppale Mali pour un million neuf cent mille euh, dollars euh, déjà boo ko calculer <laughs> maa ngi dégg euh, bër non démb benn analyste camerounais muy expliquer ne un million neuf cent mille boo ko multiplier par trois c'est cinq milliards 700000. soo ko diviser par la population totale Mali ça tourne autour de 20 millions comme Burkina nga dem Niger c'est 26 millions et quelques habitants ñu ne xaalis boobu boo ko diviser par nombre d'habitants yooyu ça revient à ku nekk ci population yi à 300 francs. 300 francs 300 <laughs> francs donc loolu mënuñu wax ne euh, c'est une <laughs> somme boo xamante ni am na njëriñ noonu ba tey jii mën a Mali wala Burkina mu xeex efficacement contre le terrorisme ñu ngi joxe beneen exemple ne hélicoptère yi nga xamante ne nii mooy hélicoptère d'attaque yi nga xamante ne nii am na tey jii nii ci armée malienne te bokk na ci di tax ki daal ñu récupérer ko assez facilement ñu ne hélicoptère yooyu benn bu ci nekk rek ça pour 10 millions d'euros mm-hmm. léegi bu nekkee 10 millions la benn hélicoptère di jar yow nga ne da ngay jàppale nit ki pour mu xeex ak le terrorisme jox 1 million 900 mille donc ça ne signifie absolument rien soo ko comparé ak li nga xamante ni moo xew par exemple Ukraine que européens yi ñoom considéré que ne Ukraine dañu ko agressé mhm. comme ni ñu mën a waxee ne noonu lañu ñu agressé Mali comme ni ñu mën a waxee ne noonu la ñu agressé Burkina européens yi tey dañu jàppale Ukraine de sorte que <laughs> dul woon seen njàppandal ak njàppandalu États-Unis yaakaar naa Russie pare na ak Ukraine bu yàgg mhm. donc pour diir que rien que France ci boppam yaakaar naa lu mu jox ci Ukraine en terme de financement ba guerre ba commencé ak léegi ça doit tourner autour de dix millions d'euros donc nga gis que africains yi ñoom ci seen biir daanaka non seulement solidarité bi du demee noonu mais également da ngay seetlu ne dafay am beaucoup d'hypocrisie maanaam sax da ngay posé wu la question ndax initiative bi est-ce que réellement si ñoom la jóge est-ce que nekkul loo xamante ne ni dañ leen koo dégal pour ñu def ko parce que kat seetlu nañu ne depuis quelque temps euh, dafa mel ni ñoom li ñuy jéem mooy. neexal les burkinabé les maliens ba dynamique de rupture bi nga xamante nii ci la ñu nekk ñu daal di ciy génn donc euh, euh, soxna Aïcha mhm. Salma donc euh, c' ça la question nga xamante ne ni tey jii nii joxe nañu nee nañu CEDEAO day participer à hauteur de cinq milliards sept cent jébbal ko dëkk yooyu pour ñu gën a jafandikoo gën a jàppandiku par rapport au terrorisme mhm. mais tey jii nii ñu bëri jàpp nañu ne xaalis boobu CEDEAO daf ko décaissé pour quelque part euh, euh, naxtaan dëkk yooyu nga xamante ni tey sentir nañ ñu dañoo mer ba mën nañu sax génn CEDEAO mhm. ñu ne léegi dañuy am loo xamante ni dañ koy def pour tout simplement wan leen ne mhm. vous êtes des membres à part entière de l'organisation est-ce que du un peu euh, fipp bi nga xamante ni Mali wane na ko ak détermination bi nga xam ne Mali wane na ko en si peu de temps deux mois moins de deux mois mu récupérer Kidal alors que euh, les Français peinaient à le faire depuis des des années ci seen ay différentes forces yu nga xam ne nii taxaw na fa mais Mali euh, situation yëpp yi mu nekk yëpp en deux mois moo faire peur un petit peu <coughs> à ces organismes là ba ñu ne dañuy taxaw temm ngir wanewaat seen doole. très bien c'est c'est euh, mën nañ ko xalaatee noonu xam nga déjà euh, CEDEAO li lay gën a wone ne euh, ci li ñu nekk hypocrisie moo ci gën a bëri mooy que tey bu newoon ne dañuy jàppale Niger réellement li ñuy njëkk a def mooy. Mm-hmm. lever sanction yi nga xamante ni teg nañu ko ko. léegi bu nekkoon bu nekkee par exemple ñoom. Euh, un million neuf cent mille dollars yooyu dañ ko jël pour jébbal ko Niger déjà maa ngi posé wu la question yan autorité lañ koy jox. Mm-hmm. ndax ñoom ñu ngi continuer di wax ne Bazoum la ñu reconnaître reconnaître ñu militaires yi nekk foofu mais même bu demoon ba ba ñu war a jël xaalis boobu. Mm-hmm. jébbal ko militaires yi nga xamante ne nii ñoom ñoo téye tey nguur gi. ana naka la ñuy def ba militaires yooyu jot ci d'autant que daanaka liggéeyatuñu ak euh, UEMOA ak banque centrale. en plus de ça seen frontières yi dañu ko tëj depuis le 31 juillet mm. maanaam ñu dóor leen benn blocus boo xamante ni à part Burkina Faso bi nga xamante ni war nañ fa mën a jaarale des produits te Burkina Faso boobu <laughs> to euh, des trois pays là mooy amu ci benn pays boo xamante ni c'est un pays littoral. Mm. ñoom ñëpp ci biir continent bi la ñu nekk tey jii nii Togo moo mën a permettre ak ses ay yooyu au Burkina mu dugal marchandise mm. jaare Burkina yegg si ba Niger donc toutes ces difficultés là CEDEAO jël ko tey teg ko ci kaw Niger ba pare ëlbati ko waa dinaan dañ leen di jàppale pour un million neuf cent mille loo xamante ni c'est des miettes donc ça pose véritablement question maintenant par rapport ak Mali fa la gën a tee grave encore mm. puisque Niger na ñu wax ne jafe-jafe yi nga xamante ni moom lañ ko gën a xamal ça a débuté le 26 juillet bi passé bi ñu defee seen coup mais Mali quand même plus de dix ans ñuy traîner la question de la sécurité te dem nañ ba à un moment boo xamante ne nii plus de 60 pour cent du territoire malien ay terroristes ñoo ko doon gérer bon bu ñu la nee Kidal wax la Tombouctou wax la Gao c'est pratiquement les trois régions les plus vastes du Mali. Mm. donc yooyu noonu bu ñu nee terroristes yi ñoo koy gérer maanaam mooy que ñu ngi gérer li gën a rëy ci espace su Mali léegi liñ doon xaar ci CEDEAO mooy que quelque part am na euh, une organisation boo xam ne dëkk yu bëri ñoo ko seq am na ci dëkk yooyu benn boo xamante ni mu ngi ci ay jafe-jafe li ñu doon xaar mooy ba jafe-jafe yee jógee donc CEDEAO boobu un de solidarité. Mm. mu xool naka lay jàppalee Mali. Mm. pour mu jóge ci euh, crise boobu. malheureusement ils ne l'ont te leneen lu gën a tey garaaw euh, Mali seen ministre des affaires étrangères dem na ONU mu ne ñoom am nañu des preuves que terrorisme bi au niveau du Sahel. France moo koy entretenir. Mm. dem nañu ba wax ne sax ay équipement militaire la ñuy parachuter terroristes yi am na ay armes yoo xamante ni ñoom ñoo leen koy parachuter pour terroristes yooyu jot yi di mën a jëflante. ak euh, armée malienne donc ba Mali ak déposer ces accusations là fële ca ONU amul benn pays africain boo xamante ni en signe de solidarité au Mali jàpp na ci pour que accusation yooyu nga xamante ni Mali porté na ko ci kaw France ñu leeral ko maanaam abandonné Mali. Mhm. parce que tout simplement France am na foofu ay intérêt yoo xamante ni jàpp na ne ak pouvoir bu bees bi mënul continuer di ko sauvegarder. Hmm, léegi mhm, euh, euh, par rapport ak nouvelle monnaie bi bi nga xamante ni moom la AES bëgg a andi euh, ndax mën na menacer tey jii. Mhm. l' avenir du du franc CFA. parce que bu ñu xawee xëy na cerner loolu dinañ gën a mën a comprendre taxawaayu France ci histoire bi. waaw xam nga bu yàggul dara maa ngi doon joxe ay chiffres yoo xamante BCEAO moo ko joxe. Mhm. par rapport à la production door dans la sous-région BCEAO boobu euh, banque centrale boobu bu ñu demee bay jox pour Sénégal dane en 2020 Sénégal produire nañ fi 16,2 tonnes d'or mhm. pendant que Sénégal di produire 16,2 tonnes d'or au Mali ñu ngi woon à 71 tonnes d'or fële di Burkina Faso ñu ngi woon à 62 tonnes d'or donc bu nekkee Sénégal ak ses 16 tonnes d'or gagné mën na ci woon a gagné lu ëpp 530 milliards donc mun nañu comprendre que mun nañu comprendre que <laughs> bu nekkee 16 <laughs> euh, euh, ton d'or nga nga nga nga produire. Mm. daal li ciy gagné 530. Mm-hmm. millions milliards de francs CFA naka la ñuy def ak ki nga xamante ne ni produire na 71 tonnes d'or pour dire tout simplement que. Mm-hmm. monnaie boobu c'est quelque chose boo xamante ne ni. pour ñu euh, euh, pour ces la là créer ko. Mhm. lu war a mën a yomb la. Mhm. parce que déjà fi ñu déparé mooy c'est des pays mhm. producteurs d'or te xam nga or moom dañuy wax ne souvent c'est la euh, monnaie refuge bu ñu demee ba nga xamante ne nii nekk nañu ci crise bu bu bu bu bu jéggi dayoo. nit ñi ci li nga xamante ne nii moom la ñu mën a daw dem ci mooy or boobu. donc bu nekkee Euh, Burkina muy Burkina. Mhm. gros producteur d'or Mali gros producteur d'or ju ne également Niger mu ngi génne uranium am na pétrole ak leneen donc dañuy mën a comprendre que ne yooyu am nañu richesse yoo xamante nii mhm. mën nañ leen a mën nañ mën nañ leen a permettre tey mhm. ñu organ ñu créer seen propre monnaie boo xamante nii du am lenn loo xamante nii dina ko euh, euh, manqué par rapport ak yeneen pays yi nga xamante ni ñoo leen war a. je vois que a ngeen am peu tu vas a excuser parce que yow ci kër gi ci kër gi comme dafa jóge foofu sori ah ah maam yow yow ci kër